Bienvenue sur Salam Vision.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

الله أكبر الله ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

الله أكبر وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمعوا allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ayuha annas alimaanu darura lilabdi fala rahata lahu bila iman wala tumanina biqalbihi illa bil iman walida kaana ضرورة الإيمان للعبد أول ضرورات بالإيمان يسكن قلبك وتسعد نفسك ويزداد فرحك عباد الله ويتلاسى حزنه ويزول همه وغمه ويجد تعم الحياة الإيمان يقدر على مواجهة أحبار الحياة ومشاكلها ومصاعبها فينام حين ينام فرح العين ويسعى لكهبه متلاسحا بالإيمان بقيت يا الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom ñoo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk jullit yi ñoo ngi sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom mi xam ne moo defoon ramadan mu mawsiman lil xayrat mu nekk saison boo xam ne dañ ci doon fàggu yiw weer wu mu doon ut tiyaaba waxti saabil xasanaat ñu ci doon góorgóorlu di ci euh, sàkku lépp loo xam ne tiyaaba la woon fa min al ibad man nasaba fihi l am na ci jaam yàlla yi ñoo xam ne ba weer wi tàmbalee ba fi muy jeexe ñoom samp nañu seen nos ci jaamu yàlla sellal ko wa lazimal qur'an ñooñu takkoo nañ qur'an jaamu yàlla yooyu wa baslil ihsaan yulli nañ lépp lu baax lu amoon def nañ ko wal yawma yawmul jazaa tey mooy bis bu leen yàlla doon fay nag hiina yuwaffal ajrahum fa yughfaru zambahum wa yuqbalu amaluhum ويسأل سعيهم جعلنا الله تعالى والمسلمين منهم ñooñu mbokk yi di yàlla di fay tey mooy ñi mu liggéeyloo ñi ko doon liggéeyloo ñi mu doon liggéeyloo ñu koy liggéeyal ñoom lay fay tey mbokk yi ci yàlla tey mooy bis bi nga xam ne moom la yàlla di fay jaam yu doon woor mu leen di jox seen diplôme mu leen di jéggal seeni bàkkaar muy nangu seeni jëf mu leen di sant muy gërëm seen dox yal na nu yàlla boole ci gaa yooyu waaye allahu akbar am na ci jaami yàlla ñoo xamee ne yumhilul aasin ñooñu la yàlla yénkeloon rek ñu def lu leen neex di lekk ci bëccëgi koor di layane ñun duñu woor ñun dañuy joxe ndogu wala ñun nangam ak di laye ay yoon ak ay kilifa yu leen tere woor ñooñu dey ñoo ngi ñaan yàlla wa yaqbalu tawbata taibin yàlla yàlla nangu seen tuub ñooñu yàlla leen yàlla jéggal ndax ñooñu def nañ musiba mooy nañ seen boroom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi xamul woon kan mooy yàlla ñoo doon lekk ci bëccëgi koor daan tux ci bëccëgi koor daan moy yàlla daan toog ci keppaaru jigéen ñeeg misik ñun wooruñu ñooñu ñooñu ñaan yal na leen ci yoonu mbaax fa yaa ayyuha almusrifuna ala anfusihim tuubu ila rabbikum inna allaha yaghfiru zunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim ñi jàddoon ci weeru koor tuub leen seeni bakkaar yëg leen am ngeen borom buy jéggalaate borom boo xam ne nee na bakkaar yëpp laay jéggale mbokk yi ci yàlla sunu xutba tey mooy al imaanu ngëm munta ñàkk ngëm munta ñàkk ci jaamu yàlla képp koo gis ci jaam yi muy jàdd di def santaane yàlla ngëm la manqué looloo tax fala raaxa lahu illaa bi liman nit mënta noppalu lu dul mu am ngëm wala tumaanina li qalbihi illaa bi liman nit xelam mënta dal conscience am mënta tranquille su amul ngëm yàlla ku amul ngëm yàlla yaa bàyyi ma yéen a walisa kaana daruratul imaani lil abdi awwalu darurat looloo tax ngëm mooy première nécessité bu nit war a am li tax tey nit ñi yàqu li tax jikko yi yàqu li tax góor ñi jàng mag ñi jàng jigéen ñi jàng mooy ngëm moo fi nekk ayuha al ahbab bil imaani yaskunu qalbu ci ngëm la doomu aadama xelam di tranquille ci la xelam di dalee wa tasal nafsu ci la doomu aadama di yëgee teddaange wa yazdaadu farahahu ci lay yëgee kontaante wa yatalaasa husnu ci lay ay naqaram di ko soree su nit amee ëm ñu gëm yàlla du am benn naqar ndax lépp ci yàlla la koy teg loo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu xayr wa laysa dalik illa lil mu'min yonent bi nee na yéemu naa ci jullit jullit yëppam yiw la ngëm yàlla wax al ajaban li amril mu'min kon mu am ngëm nit su amul ngëm yàqu na nit su amul ay naqaram day métti ci moom ay jafe-jafeem day tar waaye su amee ngëm wa yazulu hammuhu wa ghammuhu su amee naqar day mujj sant nekk xéewal su amee kontaan te day sant yàlla mu nekk xéewal waaye ji du taamal xayaa day am na cafka waaye su amul ngëm moo bàyyi ma ñoo yem moo rab ñoo yem moo doomu aadama boo xam ne tekkul dara ci kaw suuf ñoo yem bil imaani yaqdiru ala muwajaati aabaa il xayaa wa masaakiliha wa masaa'ibiha fa yanaamu hina yanaam qariir al ويسعى لكبده متلسعا بالإيمان متصلحا بالإيمان mbokk yi ci ngëm yàlla nag moom aadama di ngémboo takku daa di jànkonte ak jafe-jafe adduna bépp jafe-jafe bu ko sonn ci ngëm yàlla la koy daanelee ku gëm yàlla dara mun koo daaneel sa adduna ci doomu aadama boobu gëm yàlla ci lay coono adduna ak ay problème am ak ay jafe-jafe moom doomu aadama boobu am ngëm day tëdd di nelaw bëtam gëmm xelam dal xolam féex su jógee mu daal di ngànnaayoo ngëm yàlla duggaat ci teeree ixwatal imaan yéen samay mbokk ci yàlla bil imaani yaariful abdu bidaayatahu wa nihaayata ngëm mooy may doomu aadama mu xam fu mu tàmbalee mu xam fu muy jeexee fu muy feewe moom doomu aadama ويتيقن رجوعه إلى ربه إن إلى ربك الرجعى أرأي الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون doomu aadama ci ngëmam lay xamee tàmbaleem ak jé ak muccam soo amee ngëm di nga xam fi ngay tàmbalee waaye di nga xam fu ngay mujjee ndax boo dee ngay dem ci yàlla bu ko laa jënal da ngay dellu ci yàlla yàgg yàgg da ngay dellu ci yàlla inna ila rabbika rujua doomu aadama bu xamee ne dana dellu ne tukki bi am na retour waaye soo jàppee ne tukki bi di nga ñibbi di nga bàyyi xel si ñibbi ñun nag dañoo ñëw àdduna nekk ay tukki allazina yazunnuuna annahum mulaaqu rabbihim wa annahum ilayhi raaji'uun waaye ñi yaakaar ne ñoom dañuy dajeeg yàlla ci ci voyage boobu ñoom dañuy préparé dañuy góor góor ci li leen yàlla sant wa bil imaani ya'lamu al-abdu tariqa bashar wa masirahum ci ngëm la doomu aadama di xamee yoonam ak fu muy mujjee fa yaftaaru ay tariqayni wa ayul masirayni doomu aadama boobu xamee ne am na ñaari yoon yu ko séen ci ngëm lay tànnee ñaari yoon yooyu ban lay jaaroo yàlla mu ne inna hadaynaahu sabil imma shakiran wa imma kafura yàlla ne tànn loola ñaari yoon a ngi nii yoon baax ak yoon bu bon yow doomu aadama may naa la xel bàyyee naa xel pour nga tànn ban yoon ngay jaar waaye boo amee ngëm yàlla ci ngay tànn yoon bu baax soo amul ngëm yàlla ci ngay tànn yoon bu lëndëm yoonu yahud yoonu nasaraan yoonu franc-maçonnerie yoonu góor jigéen yoonu tabaamam yoonu def neen boo dajee duma la duma yu dacee borom bi la fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ni mu amee ñaari yoon noonu la amee ñaari kër noonu la amee ñaari mbooloo ñaari kër aljanna ak sawara ñaari ku texe ak ku texee ji kon doomu aadama war a xool ban yoon lay jaar وبالإيمان يعلم العبد أن الأجر والرزق مكتوبان مقدران لا يملكهما أحد إلا الله تعالى تنقم يا رب دوم آدم الإسلامي نتندم أكبر سدم تلوم يا رب لك nekkul ci loxo kenn mbokk yi dund ci loxo yàlla la nekk yàlla mooy dundal yu yi yàlla mooy rey wa yu miit yàlla mooy war joxe wërsëg wa ma min daabatin fi l ard illa wallahi risqoha waaye xoolal doomu aadama tey seen wërsëg lu nekk jaral na ko pour am wërsëg fen sàcc njaaloo rambaaj rey lu nekk jaral na leen am wërsëg lu nekk moyen bu nekk tey doomu aadama yi dagan na ci ñoom pour na am kat na am nangam na am nangam donte ne boo dee yaay dem safara benn waaye dafa ñëw ci benn buxaabam ne ko damaa bëgg nga utal ma wërsëg dégg naa yow da ngay maye wërsëg loolu mooy premier kufr mooy nga dem ci nit dafa ne mën na laa indi wërsëg mu ne ko mën naa ko de waaye boo dee da ngay dem safara mu ne amul problème mu ne dama ngay indi ma ginaaw buy dund bu ñuul ko mu dem wër marché yi ma am ginaaw bu ñuul ne ko taalal matti ba mu tàkk waa ji daal di taal matti ba matti yi tàkk ba egg ci tàngaayu bi nga ne fa la yem mu ne ko yeewal ginaar yi mu dëgër nga dugal ko ci biir te doo waa ji takk ginaar bi dugal ko ci biir mu taxaw di xool ba ginaar bi soo ba nekk doomu taal mu ne ko di nga waaye safara la jëm waa ji ne amul problème dugg safara amul problème laa ilaha illallah laa ilaha illa allah ngëm googu lan la alal jooju nga xam ne fi ngay def ay amaana sa alal jooju yow doo ko jëriñoo waaye doomu aadama yi tey safara tuuti duñ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa gis Mikaayil leelatul israa wal miraaj mu ne Jibril ci kan la ñu mooy Mikaayil mu ne ko maa lii laa araa Mikaayil laa yadhab lu tax Mikaayil bii moom du reetaan Seydina Muhammad ne ko Jibril ne ko dafa yaakaar ni bu yaa reetaanee yàlla yóbbu ko jahannama ñun nag kan mooy suñu def bàkkaar di def bàkkaar di fëgg sa def bàkkaar di bat sallallahu alayhi wa ne man faala danban yadhak daxala naaru wa yaqii képp def bàkkaar di jox di ree bés a ngi ñëw di nga dugg safara di jooy na ñëwee wërsëg ci loxo yàlla la nekk takunu yudrikumul mawt ñooñu yooyu fu mu mën a nekk danañ dee ku mu mën a àndal danañ ko bàyyi dee danañ bàyyi njaboot danañ bàyyi ay soxla yàlla dinañ wàcce suñu kër yi dinañ génne suñu néeg yi danañ wàcce suñu lal yi ñu laxas ñu dugal ci morgue yi sang ñu sang ñu takk ñu teg ñu ci kanamu jàkka yi daal ne imaam pare nañ imaam ñëw daal ne innahu abduk wabnu abdik wabnu amatik kaana yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah allahumma in kaana muhsinan fazidhu fi ihsani wa in kaana musian fatajawaz anhu allahumma la taftinna baada wala tahrimna ajra imaam ne assalaamu aleykum ñu daal lay yéen romb sa kër doo doo ci dugaat ñu romb grand place nga lan toog di gam yee doo ko fa toog ñu romb terrain de football bi nga doon entraîné doo ko entraîné ñu romb fépp xar yi ñoo lay topp gunge su ñëwee ba ca bàmmeel ya gas ba mu xóot daan ne bismillah ala millati rasulillah ñu daan lay wàccee kenn du dugg de mbooloo mi ñu bëri bëri bëri kenn du dugg kenn du dugg kenn du la fa wéttali doo fa xam kenn ñu daal di wàcce suuf si commencé ñibbi ñaari malaayka yàlla yónnee na ko ñu jublu na toog yeneen ci bi nee na mayit iza wudi'a fi qabri wa tawallaahu asaabu mu ne ataahu malakayn nit buñ ko dugalee ci bàmmeel ba nit ñi wane ginnaaw ñaari malaayka ga ne ko yëkkati ko ñu ne ko maaza kunta taqulu ala haadha al abdu muhammada loolu la wax kon kooku jar naa xam ku xamul Muhammad danañ la duma ëllëg wallahi lazi laa ilaha illa huwa jullit bu xamul yonent yàlla Muhammad soo duggee bàmmeel ñu duma la coolee rek ku nekk ngay bàkkoo sa kilifa ak nangam ak nangam ñun ñooy waajur ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy loolu fii la yem ci àdduna soo duggee bàmmeel jeex na bàmmeel kenn ku fa laaj kenn ku dul Muhammad kon nañ góorgóorlu ñu xam kan mooy Muhammad عباد الله وبالإيمان يعمل العبد لآخرته لأنها دار القرار والبقاء ويعمل للدنيا ما يبلغ آخرته لعلمه أن الدار البلا فنا واحتل فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا تنقم يا الله دوم آدم جام يا الله بي تلاقي الله خير كم تجمع الله بالدنيا fii la ñuy liggéeyee ak dunya daaru amal wal aaxira daaru sawab adduna mooy këru liggéey alaaxira yàlla di fayee aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا تجعلنا جبنا فنكرف عن قولك الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله وبالإيمان يعرف العبد أن الدنيا متاع زائل فلا يغتر بما فتح له منها ولا يجزع على ما فاته منها ولا يحسر أحد لأجلها ولا يكرس نفسه لها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل عباد الله yéen jàmm yàlla yi ci ngëm yàlla la doomu aadama jàmm nga xamee ne adduna amul sens adduna amul solo fa kam min malikin rufi'at lahu alamaat falamma alamaat ñaata yoon lañ la jël di la takkal nga mataan yow yaay jiwu yaay jiwu yaay doomu jiwu yaa am grade sangam yaa am martaba sangam yow yaa takk ndombo sangam ndombo tànk sangam yàlla tekki ndombo tànk gi ñu wàcce la ci suuf suuf la ñibbi dara fa fa kam min malikin rufi'at lahu alamaat falamma alamaat aduna mu soobu na aduna jay bu ñu aduna jay yaxsabu anna maalahu axlada mu yaakaar ne alalam ci sax bi na ko tere dee mu fàtte jalla jalaaluhu dina ñëw jël ko ñu yóbbu ko jal dellu si ci kër gi jal mu jaloon ñu tasaare ko jaale ko ñëpp daal di ñibbi dara bu xew ixwatal imaan yi falaa yaftaru bi maa futia lahu min ah li la yàlla may ci wéru li yàlla may ci ndomba tànk am li la yàlla may ci kàttanu li la yàlla may doore bul ci waru bul am na ñu ëppoon doole yàlla jëlee na leen fii katabal mawtu alal xal yàlla bind dee ci jaam yi ay na firawna wa haamaani ay na man saatu wa saatu wa banaw xalakal kul ana borom doole ñëpp yàlla alal na leen ana borom alal ya ana haaruuna ana qaaruuna ak hamaan ñu nga ci armée yi tëdd kon am na jay waaye yow tamit fala yajza ala ma faatahu mina yow mi amul ki am bu mu won ki amul bu mu xeeb boppam bu mu toroxlu bu mu yaakaar ne yàlla ko soxore yàlla koy nattu rek am am nattu la ñàkk fa amal insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akrama wa naama fa yaqulu rabbi akraman waaye wa amma iza mabtalaahu faqadar alayhi risqa fa yaqulu rabbi ahanan ki am na yitte nattu la ki ñàkk na yitte nattu la warul ñaane kenn bu mu soxore kenn na yëg ne dund àdduna amul sens mooy kër guy sax te mooy kër guy mujj àdduna day jeex métti du àdduna mu ngi dee soo dee métti di jeex na loo tëdd tëdd tëdd tëdd tëdd bi yàlla accidentel fépp damm lépp di métti kenn du mën a yëkkati kenn du mën a tëral kenn du taxawal waaye boo dee métti boobu jeex na méttitu àdduna mu ngi yem dee méttitu àllaaxira mu ngi tàmbalee dee loolu tax waa safara bu duggee safara dañ naan yàlla rey yow yàlla rey nu ndox la pour méttit bi jeex méttitu àllaaxira ma nga tàmbalee safara ma nga tàmbalee dee mbokk yi ci yàlla wa bil yabdulul abdu duniyaahu fi sabili baqaami dinihi doomu aadama ci ngëm yàlla lay sukkandiku liggéey ci àdduna lu koy luy defar àllaaxira wa bi dul wa bil iman yabdulul abd ci ngëm yàlla la doomu aadama di defee effort fii ci àdduna pour lan pour diineem baax waaye wala yabdulu diinahu fi sabili baqaami duniyaa kenn du jël àllaaxira di ko raaxee sa aduna di ko ñewee sa aduna di ko daaxee loolu musiba la nga yàq sa àllaaxira pour aduna te aduna day jeex kon góorgóorlul ci aduna bi jeex da nga fa def àllaaxira ñun nag dañoo inversé ñu jël aduna defaree àllaaxira ñu jël sunu àllaaxira ko sunu aduna suñu demee àllaaxira loxo kese loxo kese. saxaabatu kiram yonent daf leen wax benn baat rek ñu réussir jël leen yàlla ngeen dugal seen xol ngeen jël àdduna ngeen téye seen loxo su ngeen gisul lu ngeen xam ngeen sànni àdduna des ak yàlla ñun ñu daal di jël yàlla teg ci loxo yi jël àdduna dugal ci xol yi suñu gisul lu ñu xam ñu sànni yàlla jàpp àdduna looloo am Sénégal sànni yàlla jàpp àdduna looloo tax bu ne du dee na di suñ duggee ci àdduna bi ñëpp yàlla. ñëwee ci dëkk ñu yàlla suñ ñibbee ci kër gi mel ne moom dund parce que àdduna lan gëm ibadallah man kaana yuridu al-aajila ajjalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid summa ja'alnaa lahu jahannam yaslaahaa mazmuuman mabkuuraa wa man aada yéen laay déglu ci aay bi wa daraba allahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanataa tahta abdayni min ibadina salihayn fa xaanataahuma yàlla nee na ñoom ñaar li ñuy baax li ñuy baax falam yugniya anhuma min allahi shay wa qila dxulu naara ma daxilin non su munul dara yomal qiyaama ku mun dara ana ana ana Ibrahima ak baayam yàlla nee na wattaxaza allahu ibrahima xalilan bàyyam a nga safara ana lu ak jabaram waaye xooleen mbir mi du mbirum du mbirum xeex du mbirum sant du mbirum tarixa du mbirum association mbir mi problème iman la xoolal firawna firawna kàccoore bi mu kàccoore ba ne maay yàlla firawna bon gi mu bon adduna bi dooroom fenn ñu ne la kee turandoo firawna ndax mbon jabaram a aljanna وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين waaw kon mbir yi fan la nekk jabaru Firawna nekk aljanna jabaru Nuux nekk safara kon mbir yi ci jaamu yàlla la nekk nekkul ci sant nekkul ci mbooloo nekkul fenn borom bi nee na wa man araada al axira ku bëgg al axira ngay def man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir gis nga daal di continuer hadis ba parce que alaxira su nekkoon ci dund nit dund googu jagadi na dund googu du baax xoolal waa ji dafa gëm alaxira ba pare wa saala sa'yaha ba pare wa huwa mumin encore foog nga gëm yàlla borom bi ne fa ulaayika kaana sa'yuhum mashkura wa bil imani yasbutu al abdu amaama al fitan ak sarra wa darra su ngeen gisee doomu aadama am problème daal di riposte nekk jullit gëm day fekk ngëm yàlla moo nekk ci xol bi wallahi boo boo gëmul yàlla su fitna ñëwee rek nga daal di bàyyi seen diine moo tax doomu aadama war a préparé ngëm sallallahu alayhi wa sallam dafa toog fukki at ak ñett di préparé sahabatul kiram makkatal mukarram moo tax jam leen lakk leen ñoom bilaal dóor leen ci naaj bu tàng bi teg ay montagne yi baj seen ñoom lan lañ doon wax ahadun ahad ahadun ahad parce que bi préparé na leen ci ngëm rey waa kër di dóor Sumayya di ko rey di rey Amma di rey euh, Sumayya lan la lan la wax sabran ala Yaasir fa inna maw'idakum janna parce que ngëm moo fa nekk ngëm da lay jaral lu nekk xool leen saxaratu Firawna xool leen njabarkatu Firawna yi julli wuñu woowuñu joxewuñu asaka defuñu dara dañoo dee di ko aljana dañoo xëy di bokkaale gont di bokkaale ngoon jot ñu bokkaale ñu rey leen balaa fajar jot ñu dugg aljanna te joxewuñu dara keroog ba ñu conclure ak Moussa Moussa gañe leen ñu ñëpp mbir mi du njabar ne mbiru yàlla la ñu ne amanna bi rabbi Moussa wa Haroun moo leen jàngal njabar dafa am lu mu leen wan am lu leen nëbb waaye di ngeen xam di ngeen xam danaa leen yeew ci garabu ci suuf danaa dagg seen loxo ndeyjoor ak seen tànk càmmoñ di ngeen man ak kii kan moo gën a soxor gaa yi ne ko fax bi ma anta qaad innama taqdi hadihi lxayaati dunia li nga mën adduna rek nga mën àllaaxira ñu nag yow ñoo fay tus dafa mën te ñun la yëngal yow Firawna suñu yaram yi rek nga mën a laal suñu ngëm moo faa yegg si nit na ku ngëm ku bëgg a taxe utal ngëm réew mi ngëm moo fi manqué looloo tax dara mu fee baax dañuy sonal suñu bopp suñu amul ngëm yàlla dara du fi baax bu yeboo ñu defar ay tali bu yeboo ñu defar ay immeuble bu yeboo ñu defar ay train bu yeboo ñu defar ay oto yuy naaw su ngëm yàlla amul lépp c'est zéro wa ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura ngëm la yàlla di fay ëllëg loolu tax mu war a ngëm yàlla tabaraka wa taala nit su amee lu am na lépp wa bil iman yuaddi ma alayhi min al huquq wal wajibat ci ngëm yàlla la doomu adama di xamee devoir yi suñ ko joxee liggéey du détourné xel alal du ko du fekk du rombaat ndax day xam ne ay àq la yoo xam ne jaam yàlla yee ko moom moom jaam la ci jaam yàlla yi lii ñu jox koy da ko war a sàmm su ko sàmm lu dul yàlla dina ko taxawaloo ci kanamam laaj ko wa bil iman yu'addi al abdu ma alayhi min al huquq wal wajibat lillahi taala wa li xalqi ci ngëm yàlla ngay joxe yàlla li mu moom ak jaam yi li ñu moom lan moo tax tey ñuy jaawale li moom ak li jaam yi moom ñu jël li moom ñu koy jox jaam Sénégal ngay dégg ñu ne gëm yàlla Sénégal ngay dégg ku jóge Sénégal dugg biir safara bi caabi di naan yow génn diw génn génn génn ñëwaat fii naan damaa demoon safara génn naa ma nangami nit Sénégal léegi du ne sama taalibe bu deewee buñ ko dugalee bi ñu ko amee ñetti fan bu ma woowee ma ñëw Sénégal ngay dégg ne jiw yi ñu woon démb doon reer Sénégal ngay ne démb maanaam mbaa doon dogoo ndox Sénégal ngay dégg ñu ne alquran rakkal la Sénégal ngay dégg ñu ne alquran ni mu gënee silaabeer noonu la nangam gën a alquran Sénégal mooy dégg ku ne yonent yàlla Muhammad dafa yónni dafa yónni yonent yàlla dafa yónni Muhammad mu ñëw ci yéefee waar leen nekk julli yàlla yónni diw mu ñëw ci julli ñi waar leen ñu nekk nangam Sénégal la koy dégg Sénégal ngay dégg ñun ay ñu ay julli ñun ñoo gën julli Sénégal ngay dégg loolu Sénégal ngay dégg ku ne man yàlla laa Sénégal ngay dégg tarixa yàlla yàlla Sénégal ngay gis am xale bu góor buy lambar ak boppam si bu ñu gën a fóot cinquante ans mu naan man yàlla laa gis naa yàlla looloo tax ñu dëkk bi am problème suñu delluwaat ci sonal suñu bopp bu ñu delluwaatul ci ngëm delluwaatuñu sonal suñu bopp la aqida illa bil aql wala aql illa bil iman wala iman illa bil maarifa wala almaarifa illa bilquran wa man arafa quran arafa rabbah wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah kilifa yi nga xam ne ay autorité lañ nga xam ne ñu ngi ci justice bi ñoom ñëpp ñu ngi fi toog ak ñeneen ñi nga xam ne gisuñu leen waaye ay kilifa lañ ñoom ci biir mbooloo mi toog ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen wax taqabbal allahu minna wa minkum di leen jéggalu nag di leen bala baax ndax léeg-léeg di jiital nit te matewu ko xam-xamam matewu ko yaram matewu ko waaye rek da ngeen comprendre yëpp da ngeen arab tout illa al islaha mastataatu ma tawfiqi illa billah maa ngi jégalu sama mbokk yi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo nekk di dégg bëccëg doon tafsir quran doon yor commission jàkka ji bu dégg bëccëg ñu nekk ci jàkka ji di taxawal liggéey bi maa ngi leen di jégalu beneen baal baax képp koo xam ne xam naa la xam nga ma sama ànd noonu wala sama soppe nga maa ngi lay ziar di la baalu baax di la jégalu di ñaan yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp yàlla ñu yàlla boole baal di leen seedeel ci borom bi tabaraka wa taala ci néegam bi ñu leen bëgg la ngir yàlla yal nañ leen yàlla bëgg asalaamaaleykum guddi ak bëccëg bu leen fàtte ñu ñaanal leen bu leen fàtte ñu solidarité seen wet bu leen fàtte ñu taxaw seen wet asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur Salam Vision.